jumaay Touba. li ngeen gis ci jumaay Touba tey benn la ci activité daayira Muxaddamatul Xidma ndax daayira bi depuis 1994 mi ngi existé fi ci jumaa ji organiser lépp lépp lu aju ci jumaa ji yor gestion beeg nettoiement beeg entretien beeg lépp ak sécuriser li war jumaa ji donc euh, lii nag euh, ñu ngi ko tàmbali ci atum 2005 euh, ci jumaa ji ànd ko ay kilifa diine ak ay opérateur économique yu nekk ci dëkk bi liñ ci jublu nag du lenn lu dul. dimbali néew ji doole yi rawatina ñi nga xam ne waxtu dog leneen leen di fekk ci jumaa ji ak li ko wër ba bu ñu fi ñëwee mën a dog seen koor te du ñu am benn jafe-jafe ndax ku nekk xam na euh, Touba du tàggalikoog mbooloo benn yoon rawatina ci weeru koor ziar yi day bari jumaa ji képp ku ñëw da nga ñëw ci jumaa ji te xam nañ ni itam Touba population bi fi nekk bari na bari goo xam ne euh, bu waxtu dog jotee ñi di jóge ci marché Ocass di ñibbi ñenn ñi jóge ci li wër euh, dëkk bi ñenn ñi ñëw fii ci njàng mi nga xam ne mooy xew ci kër bi kon waxtu woowu bu waxtu dog jotee ñu war a jaar ci jumaa ji euh, war nañ fee mën a jaar dog seen koor euh, ba jàll te ñu am benn jafe-jafe loolu mooy li nga xamante ni moo waral ñu ñu ñu amal activité yi nga xam ne moo nekk ci koor gi loolu nag dañ ko boole ak ay jotaay xam-xam muy ay waxtaani diine ay conférence 30 conférence yoo xamante ni chaque jour danañu amal benn yoo xam ne ay thèmes wax ci li xew ci jamono fi jamono toll yenn itam day wax ci fiq ci xam-xam ci ay njàngale lu mel ne bi euh, ngeen dajal tey li nga xam ne mooy wax ci euh, wàññi ci julli ak yokku ci julli ak ni ko jullit bi defee loolu tam lu am solo la ak yeneen jotaay yoo xamante ne ay fatwa la ay laaj ci tontu yoo xam ne euh, mbokk talibé ak mbokk ji dañ ko mën a jëriñoo yokkute am na ci ndax ci 2005 bi ñu koy tàmbali ñi fi li fi daan nekk ci mbooloo daawul ma sax lu ma 200 personnes bon donc nga xam ne budget année ba yëpp woon million 900 et quelques mille daaw suñu budget àgg na ci 70 millions parce que li fi fréquenté li fi dogee euh, par jour mat na 5000 personnes ni ngeen ko gisee ni image yi fii ci wet gi féete Kër Sëñ ci yokk bi euh, Kër Sëñ noonu la war a jumaa ji ba wet gi féete Kër Sëñ Saliou kon loolu xam nañ ne mbooloo mu baree baree baree ndax consommation yi li ñu jënd ci li ñu fiy ci mburu par par bis mat na 2500 baguettes euh, bon bu dee suukar lu mat six sacs la ñuy utiliser par bis loolu boo ko waxee rek da xam ne mbooloo mu bari moo ko moo ko a jëfandikoo kon donc lu mat 5000 personnes ñoom ñoo koy jëfandikoo nga xam ne kon daaw bu ñu ci defee 70 millions ren itam euh, yaakaar nañu danañ àgg millions loolu lépp nag mu ngi jóge ci poosu taalibe yi rek Euh, social la boo xamante ni poste talibé rek kilifay diine yi tàmbalee ko Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg te wér moom moo ci jëkk a dugal ab barkeelam mboolem njabootu Serigne Touba ji commerçant yi opérateur économique yi diaspora bi cellule Moukhaddamatoul Khidma yi nga xamante ñoo nekk ci biir biir Sénégal ak yi nekk bitim réew ñoom ñëpp kenn desul noonu la ñuy jël def ko ci liggéeyu koor bi nga xam ne daanaka commission yi ko seq bu ñu xoolee lu mat 550 personnes commission yooyu ñooy liggéey ci corps bi 550 yoo xam ne ay soxna ak ay góor ñoom ñoo fi nekk di di di assurer li nga xam ne mooy organisation bi ba ci sécurité bi ba ci naafile so bi ñu koy defee xam ngeen mbirum sécurité dafa sensible sensible koo xam ne tax na bi koor gi jub si saisir préfet ci lépp loo xamante ni laaj na service étatique mu mu mu euh, appuyer ñu ci ci wàllu sécurité ci wàllu approvisionnement d'eau lu mel ne sapeur pompier lu mel ne santé waa Croix-Rouge ñu fi kon dafa mel ne sécurité bi dañ koy ànd ak police nga xam ne ñoom ñoom lañ dénk sécurité bi mais teewul waa daayira Moukhaddamatoul Khidma ci ni ñu tàmmee euh, masla ak jullit ñeeg talibé yi danañ mën taxaw ci porte yi ku nekk ñu wax la fi ngay mën a jaar ba dugg ci barab yi ñuy ndogoo organiser waxtaan ba fa ñuy waxtaanee mbooloo ma fay nekk ba bu ñu noppee danañ dugg te benn bousculade du am benn buuxante du am soxna itam fa ñuy nekk ñu yóbbu leen fa noonu la ñuy assurer sécurité bi ci ci ci ci mboolem point sàppe yi moom ni ñu ko gisee nii rek dafay mel ne fu ñu toog di julli noonu lañ ko defee du itam du ñu bàyyi itam ba nit ñi toog ñu ñëw di leen jox ñam yi mais dañuy teg lépp ba nga xam ne ku nekk fi nga toog lépp fi la lay fekk ni ngeen ko gisee ci image yi bu bu dog jotee rek dangay ngay di jël sa tàndarma xelli sa kafe wala xelli sa meew xelli sa bisaab wala xelli sa dinjeer jël li nga war a jëfandikoo lépp nga jëfandikoo suñu paree itam ñu ramassé waat bagage yëpp delloowaat nettoyé waat fépp ba mu set loolu itam loolu noonu rek lañuy loolu rek lañ ñu ko gisee nag noonu lañ koy organiser bu defee itam am na ay innovation yu ci am itam ndax euh, li ñuy consommer ci ay mburoog yu mel noonu bari na ak yenn xeeti gato yeeg yooyu tax na ñu amaloon benn boulangerie boo xam ne fii lañ ko installé ci biir jumaa ji ngir mu mën a jàppale euh, euh, ñi nga xam ne ñoo yor wàllu boobu ci ci ci wàllu defarum mburu ay gatoog ay lu mel ne ay pizza yu mel noonu nga xam ne dañ koy yokk ci ndox yi ngir mu gën koo taaral gën koo muriteel message bi ba ciy lancé mooy daayira Muxaddamatul Xidma fi muy liggéey ci jumaa ji day lépp lépp ñëpp du lenn kenn moo tax lu ñu fiy def rek dañ koy bëgg a bokk ak mbokki taalibe yëpp ba tax na ni ma ko waxee mbokki taalibe yëpp ñi ngi ciy jàpp waaye ñi ngi leen di gën a lancer appel ñu gën cee jàpp bu a baax a baax boo xam ne defe lu baax baaxee na fu ne waaye jàpp nañ ne defe ko fii ci Touba defe ko itam ci barab bi la gën a baaxee kon ñu ngi ciy tàllal loxo mbooleem mbokki taalibe yi moo xam ñu nekk ci biir réew mi wala bitim réew ñu gën cee mën a dugal seen loxo ndax jëf ju baax la joo xam ne fi ñu koy def fu baax la te ñu ngi koy def itam Euh, Cheikh Mamadou Mountakha léeg-léegi su amee ay gan ñoo xam ne dañoo jóge bitim réew ñëw dana leen won lii ndax lii kat sag la boo xamante ni Makka ak Madina lañ ko daan gisee kon nag ñu ko gisee Touba jar na ñoom ñu won won leen ko bañ xam ne ñun euh, desuñu ginnaaw ci ci ci liggéeyal yàlla euh, bu ko defee itam mboolo yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi tam di ay daayira ñu seq ak ñoom jàmm daa muxadamatul xidma seq ak ñoom ay relation ñoom itam chaque jour dañ leen invité ñu ñëw ànd ak ñun liggéey bi ba ci administration bi nga xamante ñoo nekk ci département de Mbacké ñoom itam ñëpp dañ leen di invité ñu ñëw ànd ak ñu liggéey bi ñu wan leen ko xam leen daal fii dañ fee nekk di organiser waaye fi ñu nekk ñu nag ñëpp ñoo ko bokk ñu nag ñëpp ñoo ci war a bokk taxawaay naafila gi ci jumaa ji la xewee te jumaay Touba lépp lu fi xew mu xadamatul xidma moo ko war a organiser ba tax na ni ma ko waxee ni ñuy organiser ndogo yi di ko organiser julli ajuma yi noonu la ñuy organiser naafila yi suñu paree ci ndogo yi nii ba nettoyé fépp ranger bagage yi am na yeneen commission yoo xam ne ñoom ñooy ñëw dugg ci biir jumaa ji xool xajjale góor ñu jigéen ñi teg barrières yi ba naafile gi mën a euh, àgg euh, ba imam bi dem ñu doog a delluwaat seen i kër nga xam ne ñoom ay 23 heures et quelques léeg-léeg 0 heure sax dana fekk ñu fi ñu fiy jóge. maa ngi tudd Modou Saliou Ndiaye dëkk fii fii fii si Touba euh, jógee jógee fii Télé bu ñëwoon fii si si si jumaa ji doon teewlu waxtaan wi ba ñu dégloo waxtaan waxtaan wi jeex ci la. daayira mu mu xanul xaddim boo xam ne ah, chaque année ñoom dañ fi faral di def ay xéwal xéwal yu yu yu bakkane yoo xam ne même boo nekkul sa biir kër sa doo ko fa am moo tax à chaque fois bu ñëwee teelu waxtaan bi ba heure bi ñu ñëw toog euh, ànd ak ñoom bokk toog ak ñoom ndogu ba ndogu jot ñu ndogu bu ñu paree julli timis mën a eggaat sa daara rek rafetlu ko lool lool lool ndax euh, bépp taalibe bi fi nekk si biir si dëkk bi Euh, ñëpp ñu ngi ñëw commerçant yeeg euh, ñëpp ñoo xam ne ñu ngi nekkoon si wetu daara ji ñëpp ñu ngi ñëw di teew si biir jumaa ji di ñëw di barkelu si si si si ndogo yi lépp ñu ngi si sant bu baax a baax di ko rafetlu bu wér a wér alhamdulilah di di gën a ñaax ñëpp rek ndax lépp liggéeyal Sëñ Tuubaa la ndax euh, murit bu ne war na war na di di sàkku mbir yi ndax borom alal ñu ngi fi te li liggéeyal sunu borom la ndax nga ndogal benn jullit rek moom buy xam tuyaab yu nekk si biir kon ñu ngi si ñaax ñëpp képp koo xam ne nii sunu borom may na la xéewal ñu ngi ñaan nga ñëw jige daara ji jàppale leen si si liggéey liggéey Serigne Touba bi moom mooy wax ak yéen Makhtar Dieng jëwriñu kuréel jëy sul Masaalikul Jinaan lii may gis nii moom mosuma ko gis fenn ndax man Dakar laa nekk kon nii ñu ko defee nii la ko sëñ Mbàkke Fay di ko defee Dakar waaye daayira mu xaddu ma lii ñuy def nii gisuma ko fen ci Sénégal wax dëgg yàlla man dogoon naa fi ñetti fan ndax màggal sëñ Sow bu laa fi ñëw ba léegi dinaa fi am ñetti fan waaye li ñuy def nii wax dëgg yàlla liggéey la boo xam ne ñëpp war nañu roy ndax fu ñu toll nii bu ñëw fii di nga di nga nga xam ne Serigne Touba du moromu kenn ci jumaa ji kon ñu ngi leen di sant bu baax baax ci lii nga xam ne ci ndigalu Serigne bi lañ ko defee ndax lii daal man kawe na man Dakar laa nekk waaye lii daal mosuma ko gis fan kon ñu ngi di ndokkeel di leen sant bu baax a baax dañ ciy wax yoonu murid yëpp rek ndax yoonu murid luñ bëgg nañ ko am ko koy waxee ci Dakar lañ koy waxee fii mooy li nga xam ne dañuy def seen jëf ci weeru koor dañu xam ne lii mooy alal ndax fii lu ma junni nit da koy ëpp yoo xam ne dañ fi ndogu te noonu lañ ko defee ci Masalik loolu nag kon volontaire yi nga xam ne am nañu alal am nañu xewal lii rek mooy jëf lii rek lañ di war a def ndax lii ku ko defee rek defal nga ko yàlla defal nga ko yoon te Sëriñ Tuubaa nii la ko bëggee Sëriñ Tuubaa yàlla wax lu baax ak dimbale nit ñi waaye weeru koor nga jël ndogu yu mat yi nga xam ne fi fi ne nii di ñu ndogoo fii lu ci bare bare bare am na ñoo xam ne ñu ngi seen kër duñ ko fa ndogu kon loolu wax dëgg yàlla nekk na lu jàngal bu solo ñu bari ñu ngi doogoo seen kër di ñuy doogoo fii du ñu ko doogoo seen kër kon daayira bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax nag yoonu murit yëpp nga xam ne ko xam ne murit rek nga xam ne yaa ngi yëg sëñ Tuubaa da nga xam ne lii daal jëf sa ñaq moom moom waraf la moom ku am dara ci yoonu murit nga xam ne am na loo xam ne war nga koo def di ko di ko def ci weeru koor lii daal wax dëgg yàlla jaamu yàlla gu rëy la ku ci def dara doo ko réccu jërë ngeen jëf maa ngi tudd Serigne Fallou Dia dëkk fii Touba Mosquée Gaba Ndaw bokk ci liggéey Moukhaddamatoul Khidma ci jumaa ci àjjuma yeeg yeneen événement yi rawatina koor gi. ñoo ngi sant yàlla bu baax euh, bu yàlla dogalee yàgg koo teewe ay koori koor yàgg teewe liggéey bi yàgg koo organisé di ci góorgóorlu suñu dimbali ak mbaaxum sëriñ bi liggéey bi moom comme ni ngeen ko gisee rek wër na àdduna yaakaar naa du at yi rek at yu yàgg yàgg ci ginnaaw lañ ko tàmbali. bi su set liggéey bi di gën a yokku di gën a am amélioré wu ci niñ koy taxawalee ak niñ koy organisé ba kenn ku nekk ci gox goxaan yi nga jugee ak yi wër jumaa ji boo ñëwee gis sa bopp ci liggéey bi ndax dañ koy traité ndax liggéey bi bëri na ay pàcc pàcc yoo xamante ni dañ ko amal ci biir liggéey ndax boo xoolee sàpp yi ñu ko organisé nga xam ne sàpp yi yoo xamante ni kaas bu nekk bu ñëwee benn moo ci boo xoolee sàpp bu nekk ci yenn rangée am na sàpp yoo xam ne 30 moo ci def am na yoo xam ne 60 dañ fexe ba organiser organisation boo xamante ni ak yi bu doy boo xamante ni kenn ku nekk bu ñëwee ne joxoñ wañ la fi nga war a toog ba kenn du am jafe-jafe ci dugg bi ak génn bi ak ni ngay ndogoo bu soobee yàlla waaw jërë ngeen jëf